ma mbokk internet yi nga xam ne toog seetaan ni ma def tubaarkaal ngeen xam ne maa ngi fi nga xam ne rek mooy diwaanu buntu Cambérène ndax ki xewle tey mooy tonton Tafa tonton Tafa tribunal waaye tonton Tafa borom Pod et Marichou borom Marodi TV tey maa ngi ko ñam anniversaire lay fête daal di koy def li nga xam ne ci suba si wàccee na kaamin a ah, tubaarkaal la parce que ne rey def ay berne yëpp ko ci daaray waaye ba tey comme tonton Tafa artiste la du ñàkk damaa daal di nuyoo rek daal di jàkkaarloo ki nga xam ne tubaarkàlla mu ngi sol t-shirt def li nga xam mooy les les amis de tonton Tafa soxna si nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna si. ñu ñëw daal di fekkee nga xam mooy anniversaire tonton Tafa ngeen def les amis de tonton Tafa ñu bëgg xam tey bés programme ni mu waaw tey la tey suba la nettali bi comme ni ma koy waxee tonton Tafa moom yaakaar naa ne tonton Tafa wu ñëpp la nag ko xamul mim réew dégg nga ko mu def mu nekk nit ku social nag di ko def chaque le 21 mars ndax yaakaar naa ne am na ci ñu ko ëpp doole ñoo xamante ne mënoon nañ koo def mais moom mu jël initiative boo xamante ne lu baax la ndax euh, ne sama jour anniversaire bu ma neexoon woote grand théâtre bu ma neexoon woote Mumbaay ak Cungaay mais déedéet damay def social jox taalibe yi lu ñu moom dugg ci hôpital yi waxtaan ak ñoom kon yaakaar naa ne kooku moom dañ koy bàyyi yàlla rek mu fay ko amin nañ koy bàyyi yàlla mu fay ko mais ñu suba ba léegi ñu ñëw ah, fekk fi ambiance jibi gisee assuré ko ak groupe du dëgg te suba wàccee la demee ak nga rek dañ koy def yëfi artiste wax dëgg yàlla ndax bu ubbitee ab ñaan ba pare wax wàccee na kaamin buñ ko ubbitee ba pare nag dañuy rëppatal saañi rek waaw def ba mu baax ndax yëfi artiste la yëf def yëfi ngéwél def ba mu baax rek yaa ma gën a xam waaw waaw nga yóbbu ko eh. yee waay Samba. ngi sama koñ maa ngi sama fief ah tey damaa yëngatu tubaarkàlla ndax ki ma taxawoon dañu sama grand frère ñii yëpp samay frère lañ ndax dëgg neexul noo bokk parcelle fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yoroo moo fi ñëwee tey dama fay war a ñëw tubaarkàlla fekk li nga xam ne rek mooy plateau télévision yi du ma ñëw fii ba jóge fi dama wax ak ñoom jibi nuy naa la si loo nekk as maa ngi lay ziar bu a wér a wér mais lii lan la si ambiance lan la tey Moussa Fa ko waral rek amaana tey waruñu woon sax def yëngal parce que moom anniversaire am da ko def te yàlla tax te mënoon na woote grand théâtre woote fépp ñoo bokk benn koñ vraiment mais chaque at nii la koy defee day anniversaire woo ay mbokkam jël dundam bu bari yóbbu si taalibe yi barke Serigne Saliou Mbacke di ñaanal Moussa Fa gudd fan ak wér yaram yow yaakaar naa ni ba ngay door xam naa ni mën nga njëkk a jox micro barke borom Touba di la ñaanal nag seen tele bi yal na si yàlla def jàmm yal na doon télé yu bare bare bare bare bare laaj leen ma lu ma neex ci Gàmbi asel del lu ma neex ci Gàmbi ya faap pili piling paat am na ebe eh, am na naabulo am na tapalapa eh, am na maynees neexoon mu daal di koy fête fi nga xam ne rek mooy grand théâtre baa mu woote fi nga xam mooy Sorano su boobaa bu defee entrée day fees tepp ndax ji ko sénégalais ji ko ñi nga xam ne ñoom la dëkkal ñu daal di génn def li nga xam ne mooy wàccee kaamin waaye tamit duñu ñàkk comme koñ bi daa am ay li nga xam ne rek mooy géwal tubaarkàlla xale yi di woote sàjji woote li nga xam ne mooy ambiance ma daal toog ak tubaarkàlla ñaar ñaar ñi nga xam ne ay xam ne rek moom lañ nekk ndax ku nekk rek danga naan ah, woor ma say mbokk ñu wax la ki nga doon Père xaar nuyu naa la. Euh, Astar fay naa la jox la sa wàccuwaay gërëm la ci micro bii nga ma dénk nii te tubaarkàlla fi ma ko dékkee nii nga war ma ko fee dékkee muy ci kër Moussa. Mm-hmm. muy sunu xarit di sunu nawle di nit ku baax. xam nga surtout muttu faante jama borom ku ko yàkkoonee ca ndaw mi mm-hmm. day wax naan picc balaa ñor dëgg tànk yëqam waaye ndaanaan balaa mat ndaanaan dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nga dem fekk ko ci bisam ndax da nga fa gis ay xaritamam déet Moussa bu wootee fokk ma ñëw ku mel ne man it ñëw na ko taasukat ba doon waxee fokk ma dikk ku mel ne man dikk ndax nag tuwaarkàlla mbaax ga ne ca moom dafa law boo xoolee moo ko dee wolofal dama naan daa baax de bàquk bàqaar gu nu bàq ci bàquk wax muy bëgg wuti mbaaxiin ngënee lañ ca moom Moussa waa ngay gis artiste boo xam ni bu nee tournage nu ne action nu ne allahu akbar mu ne coupé yàlla la julli ba pare jël kuru sam weer di ñaan bu noppee nu soog a dellu ca liggéey ba Moussa di sunu nit di nit ku baax di koo xam ne bii ne mën na noo seede ci moom lu matub livre ndax ànd nañu liggéey àndati liggéey àndati liggéey àndati liggéey te óor liggéey ba sax léeg-léeg bu nu liggéey nu nooy naananoo war ga dégg nga loolu hmm. xanaa kon kooko xam naa ko man moo tax ma dékkale micro ndax xam naa ne xam nga ko père ay yaag ngeen bokk li nga xam mooy tournage waaye yéen a bokk li nga xam mhm. yi télé bi ngeen di liggéeyee waaye ba tey du ma la bàyyi daa jotaay ndaanaan ndax biir yi daa fees mhm. tubaarkàlla Moustapha berne nañu ba mhm. ko ma jàkkaarloog beneen naataangoom tubaarkàlla muy caamaas waaw mais grand caa nuyu naa la <laughs> noo ngi sant yàlla bu baax jul ci yunt bi di ñaan yàlla sunu daje bi yàlla bu mu doon sunu mujj daje di santat yàlla bu baax nag. ba nga xam ni xale bii nga xamante ni nii moom na ñu dippee Moustapha. xale yi di ko aks am lu mu xewle. li mu xewle nag day loo xamante ni ku ci nekk. am nga sa bis. mu jël bisam. xam na ni moom mii gën gi mbindéef lañ ko tuddee. ñu koy dippee borom miim adam dellu miim deel eh. mu ne kon damay delluwaat mbattu ca daal. ñu ne ko Moustapha nooy def mu ne dawuma dinaa grand théâtre de. déedéet. dawuma Sorano de. déedéet. woowuma xumbaay woowuma rumbaay. déedéet. loo woote mu ne ma bëgg tëral doomi aadama ñan ci doomi aadama mu laal cible ba. Ah, dafa am cible. dafa am cible. cible ba nag moom la Moustapha laal. mais ñan. ñii nga xamante ni nii ñooy gàddu seen bot di yalwaan ñii nga xamante ni nii doona bàyyi ndey bàyyi bàyyi uufu aluwe di jàngub alxuraan Moustapha nag ñii laa bëgg delloo njukkal ñii laa bëgg a taxawu ñii laa bëgg a jàppale waaye dama ne lu jóge ci xol loo gis ci lay dellu wane na nag un bon exemple Moustapha wane na ko wane na un bon exemple te nag dinaa la wax ñaar mbaa mbir nga ne lu jóge ci xol loo gis ci lay dellu Euh, euh, nit boo ko bëggee xam dangay dem ci ay mbokkam. waaye bu duggee koñ bii. Mhm. but ba but. Mhm. ñu dëkk ci koñ bi ñëpp. Mhm. Moustapha dana koy safoo di ko bëggee. ci taxawaayam. ci diineem ci comportement am ci kàddoom Moustapha bu kàddoom jógee nga xam ne kàddu kilifa jóg na Moustapha bu ne jëj ci taxaw boole ay boppam loxo ci gàddu kurus nga xam ne nag taaliba Cheikh ba taxaw na Moustapha nag dafa woote ñaar ci ñun père wax na la ko léegi léegi kàddu gu am solo balaa nga koo xam nga fekk ko bërëb liggéey kaayam bilal ba naa laa Moustapha ne coupé Moustapha lu xew mi ne ma foog ñu julli ma noppi de. dem na ba mu gi xam na ne loolu. sa jongo ma lan waa gis nga lépp ki bis tonton Tafa rek. na dee xeesa yàlla na nga heure baa non duma ma xeesalal. <laughs> tey ñu bëgg xam la moo war sa teewaay ci bés. ah dëgg du neex na ki aye tey dafa doon koo xam ni baax bëgg ñëpp vraiment tonton Tafa boo ko xamee tey day mel ni ay at nga ko xam barki Serigne Saliou man moom mënu ma wax ci moom sax lu bëri ndax euh, mëneew ma wax waaye dama koy ñaanal bisam bii. mu koy feete ay ati ati at ci barki Seydina Mouhamed. waa gis nga ah comme ni mu ko waxee rek tonton Tafa tey moo xewle tey ni ñu fi gis ñëpp tubaarkaal ndax tonton bis tonton Tafa waaye dafa dend beneen jongo ma tubaarkaal si nuyu naa la. lay fay maa ngi lay bëgg a war xam rek lan moo a sa tey ci bis tonton Tafa bi. lool moom boo ma ko waxee dama ciy sawar ndax benn dama gis tonton Tafa mu nekk ci aar di ci def lu rafet ma bëgg aar def ko sama xol man sama buntu ci aar. tonton Tafa la ginnaaw yàlla parce ci moom laa jaar bokk benn koñ mu baax yéene ñu lu nekk di ko ñaanal bisam bi yàlla na ko ci yàlla taxaw bu yàgg koo féete waaw loolu rek laa amoon lu sax mais amiin merci beaucoup waagaan ba taya ah. tubaarkàlla buy yaa booy mi ngi yëngatu ci bongo bi ma nga def lu ko saf man lii waaw waaw ma waaw nuyu naa sama doom fay naa la waaw ñu bëgg rek wax ci bés waaw olof Njaay dani bis du borom lay tollool oto xaj na ci Tapha dafa baax Tapha dafa ubbi ay buntam nekk artiste man mun naa ni ñu tax ma dugg artiste ak Tapha ci la bokk baax na yëwén na yaatu na xol ba rafet na xolu jamaa la yor Tapha moo ma daxa a déplacé jógee kees teg sama bakkan bi ci kaw tali bi di ko dërëm ba ba Dakar barke sëñ Fallou Mbacké billaay walaay ma di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di ko ñaanal yal na ko yàlla musal ci mbas mi mu dunda dund bay woo yàlla di ko rappel moi nii de corona nii de paracetamol nii de nivaquine barke sëñ Fallou dafa rek ci kaw ci kanam maa wax lii waa tamit yaa wax lii bu subaa nga wax leneen waaye waagaan du ma jàkkaarloog tubaarkaala sama mag ah jàkkaarloog sama xarit tubaarkaala ka jaamu ndaw mbokk bi yaay pendoo gisa waaye mbokk bi yaay demba gisa ak jibi gisa tubaarkaala du ma ñëw fii nag jàkkaarloog moom ci baas du ma ko nuyu ka jaa nuyu naa maa ngi nii chéri si jàmm maa ngi si jàmm nag ñëw sa koñ ñëw sa diwaan ñëw sa fief ki woote mooy tonto tafa mu nekk seen dëkkandoo ñu bëgg rek nga wax ñu si tonto tafa waaw macha allah bu baax nit bu bëgg tonton Daba Daba mënu ma wax si moom lu dul baax macha allah macha allah baax. bisam bi tey mu daal di koy def li nga xam ne rek mooy anniversaire am jagleel ko li nga xam ne mooy daara yi togg ay benn fas yéene koo yóbbu ñu bëgg rek nga wax ñu tuuti ci li nga xam ne social bi tonton Tafa di dox. ah rek kontaan rek kontaan xam nga loolu lu baax la nga togg di may ñoo xam te ne lekk ñi ay néew di doole lañ dafa rafet macha allah ñu koy ñaanal bu baax ren bu defee nii déwén yal na jëm kanam yàlla nañ ko dégg fépp incha allah rabbi kontaan trop ñu ngi lay jaajëfal waaw ah, kontaan naa tubaar waaye tubaarkalla ba tey dafa doog nga dend ak beneen jongo ma tubaarkalla soxna si nuyu naa fay naa la soxna si waa li nga ne baa xew de xew ma ko benn eh, sëb la dama ko ragal daal <laughs> macha allah yow da nga baax ndax Tapha kat dañoo dëkk moom fii si koñ bi te dara ñaawul ñun fi lañ juddoo fi lañ màggee fi mooy déggoo lépp fi lay xewee car macha allah. te déggoo ñëpp déggoo ñëpp a déggoo gisoo koñ bi ni mu neexee pund ba wu pund ba wuri na ca fajar ndekki la jóg na ca fajar Tapha maa ngi koy ñaanal yal na ko feete ay ati ati at Tapha bëgg na ma yëg na ma faale na ma chaque jour damay woo téléphone. moo ma fekkoon ndar ca oto jumbo ba saa yu ñëwee ndar dana ñëw sama kër papa bu nee tëll waa ndar yëpp génn war ko dafa baax dafa ñàkk ki ñaan xale bu ndaw mën na koo tàtteel yow kenn gënu la waaye ale amal jàmm amal jàmm kon ambiance waagaan fii laa koy taggee tuuti rek ba ci kanam ci ruq yeeg ruq ruqaat yi génnee ambiance waaye xar bende artiste yaa ngi ñëw kat ndaxte ki xewle dari naa naa kuli fatiri ba ci vraiment muy nit koo xam ne nit ànd nañ ma ak moom dafa ànd nit ne ko ndax doobu may sa yére bi ci àll bi de wallahi la azim sa waay suñu yëreem maye ko ne ma naa ko jox sama tisa des si leen ma ma ne ko defuma ko xam nga moo ma gën xam ndax wallahi la azim ma ne ko heureusement ba ba oto bi jegee su oto bi jegul woon barki rasulilah sa caleçon bi ngay ñibbee xam nga sens kon euh, maa xam du duñu lu ñuy naatable anniversaire bi du fii lañ ko defee keroog kaarang lañ defee anniversaire bi mille taalibe ko wër wallahi la mu toj li mu yor ba àbba ma di ma àbba li mu yor pour may ko taalibe yi kon euh, loolu du lu ñu du lu ñu jaaxal ci moom comme anniversaire bi nag suñ ko defee fii tey ci dëkk bi dama naan anniversaire u ñëpp la yéen ñi ci ñëw bokk ngeen ci parce que nitu yàlla laa an bésu yàlla bi la wax. kon nag ñun ñëpp a ko bokk Tafa moom da nga koy ñaanal mu gudd fan rek ah. léegi ngeen àndoon ci mhm. ci liggéey bu am la leen Sénégal yëpp gën a xam li nekk ci yéen. Mhm. boobu ba tey fan ngeen nekk ak béréb boobu réewu tournage xam nga li naan mbiru yàlla yàlla rek koy defar. tribunal ñun ñoo ko téye woon ndax Rive naa dafa nekkoon ci ay loxo benn producteur bu ko yoroon ñuy liggéey ak moom muy lekk suñu xaalis mais nag koo yàgg di dóor di dóor di dóor di dóor fayuwul moytul day fayu ñu wàññeeku fayu lundi El Hadj Ndiaye woo na pour réer tribunal ma bañ TFM soxla nañ réer tribunal wallahi la azim seen TV ñu ngi taxaw pour réer tribunal mais yàlla naa dogal démb ma signé contrat beneen télé barki rasulillah te waxuma leen ko ah non non non waxuma leen ko ñoom ñi de démb si guddi la ñu koy doog yëpp dama dem signé contrat ba pare barki alxuraan doon leen ko wax mooy OFT gi nekk ci waa réeru tribunal dañ jël lépp bàyyi ko ak man waxuma ak Tafa waxuma dama ñëw waa ji woo ma ne ma vraiment Diallo ñu dan la soxla ma ñëw mu ne ma ah man daal franc su doon sama sago réutim naa soxla naa ko ma ne noonu dafa am télé bu ma ci yu ma ciy waxal nii te taxaw nañ mu génn lu wax mu génn teg ci kaw taawul te man xam nga rek soo toogee ñeenti at laaloo tey jii soo gisee loolu xam nga looloo tax ma signé contrat bi oho wax nga tànk alkaati la lu tax ñuy tëj ñuy maase te ñuy liggéey non duñ leen tëj dañuy liggéey xam nga lu nekk rek am na sikk même li ngeen di def journalisme li ngeen def caméraman ñëpp am nañ sikk même artistes yi suñu biir am na sikk loolu mënul ñàkk yàlla li mu tudd kenn mënul dara tey am xam naa ku nekk sa destin nag li leen la waroon xamee looloo looloo tax xaj na ñiy maase na ñoo xam ne bii dëng nañ mais am na ñoo xam ne jub nañ man loolu ci li ma xalaat mais comme li ma bëgg a wax mooy réew tourna depuis quatre ans mhm. projet bi taxaw mhm. kenn deful dara loolu mooy woon kon xale yi nekk aar balaa nga ciy def dara koy jàngi parce que am na ñoo xam ne tey fëkk da di waaw waaw loolu dafay am parce que mbaa xam nga ne ñoom ba léegi ku ci génn fenn ñu invité la di la fay xaalis sax da nga naan ndax ma dem wallahi alazim mooy ngor gi nekk ci ñoom tax pourtant toog nañ lu yàgg ñun dañuy am ay contrat di génn ci àll àdduna bi yëpp lañuy dem léeg-léeg maag Tafa ak rek ay dem kon nag dañuy sant yàlla li ñuy sant yàlla mooy que booy yi xooluñu si ñun sooluñu dara soo waxee ñu ne ñoo ñooy wax pourtant ñoom dañuy dem dóori te duñu tàggu mais waxuñu ko moom dañ leen di ñaanal yàlla lépp luñ bëgg ci aar bi yàlla nañ ko am liñ ñun yàlla ko raw ci aar bi vraiment dañ leen di remercier te aar bi li ci na waa yéen a màggandoo nag ci am na benn grand bu ma nettali bu bu doon góolu mais yow tamit amoo benn boo ma nettali si moom. ah non xam nga dafa am moom ñoo xeex at billahi wal kitaab un an maag Tafa dañuy xeex su ñu xamante suñu ànd loolu la woon waaw fu ñu gisee ñun ñaar duñu xeex mais ku ànd ak gang rek dañuy xeex léegi suñu xeexee après ñu tas suñu gisee comme par su ma génnee koñ bi nii day ñëw sama koñ fa am lu mu fay wut temps booy ma ñëw seen koñ dafa am lu mu fay wut mais ku nekk da ngay jéem a éviter sa morom mais su ngeen dajee nag xam nga da ngay woowu say ko ke ko wax sa koy ngeen xeex quoi noonu lañ xamante ñu miinante nag depuis boobu nag ba ñu jubóowee ba léegi xeexatuñu franchement muy benn complicité bu ñu am maag moom mm-hmm. dafa fu ñu dem ci adduna bi maag moom ñoo bokk néeg dañuy dem hôtel ñu jox ñu ay chambre lépp mais du nangu fanaan ci néeg bu ko man du ma nangoo fanaan ñun ñooy bokk nekk wallahi al lim ma xamal nee naa la amul ku ma bokkal ndey baay xamal li ma ko xamal ku bokkal ndey baay xamal tey ki xewleel artiste sa bés nga am comme li ma la waxee kàcc déggoo lañ nekk kii nag tubaarikàlla muy Pendo Guissé di mag ci ki nga xam ne rek mooy Demba Guissé waaye nag di magu Jibi Guissé di magu Kadja Guissé Fama Guissé kon foog naa ni koñ bi suñu koñ la mu bokk ki nga xam ne rek mooy tonton Tafa koñ muy Oksu koñu déggoo la kon buñ déggoo dañoo war a déggoo buñ déggoo dañoo war a déggoo Pendo nuyu nañ waaw maa leen di fay bu baax a baax tey nag mu nekk uh, bisu tonton Tafa mu def li nga xam ne rek mooy social mënoon na ko woote Sorano mbaa mu woote ko grand théâtre te bu ko defee day fees ndax lebal na ko nit ñi mais tey mu def li nga xam ne rek mooy social woote ko ci koñam mu ànd si waa koñam yóbbu ay benn ci daara yi ñu bëgg xam uh, nga xalaat ci loolu waaw ko rek dañ koy rafetlu rek tubaarkàlla di ko ñaanal yàlla na ko mën chaque année muy gën a yaatu di gën a yaatu di gën a yaatu parce que moom noonu la mel koo xam ne depuis mu mu mu mu nekk Euh, nekkagulu nekkaguñu woon sax peut-être buy génn télé boobu la doon commencé social parce que ñoom seen kër kër social la déjà. parce que papaam commencé ko yaayam moom et moom lu mu mës a liggéey bi muy liggéey jimbo bu mësaan a fayeeku weer jour bi muy fayeeku ñëpp koy xam parce que xaalis bi day jeex ci jour bi donc moom commencé na social yàgg na boobu kenn xamagu ko mu génn télé. voilà boobu kenn xamagu ko mu génn télé foog naa ne ñun ñi nga xam ne ci koñ bii lañ juddoo ñun ñi xale buy jàng aar ci parcel ci yéen la ko ci yéen la ko royee ku bëgg aar ak yàlla ak yéen ñaar ñi taxaw a tax ma bëgg nga wax ñu tuuti seedal ci tonton Tapha mi ci ay qualité waaw qualité yi mu am mooy euh, am na yërmande euh, am na gaaw naa jooy aussi gaaw yërmande boobu mooy loolu donc moom bokk na si ñi nga xam ne moo ñu jàngal fecc li ma doon wax ne wax naa ko ci benn émission ma ne leen li ñu war a def suba ñoom moom mu jàngal ma ko tey ci guddi donc suba bu ma ñëwee ni ñu leen doon wax kii xale la bu mu fi toog mooy leen bu fi jógee yéen ñëpp ngeen jóge fi donc loolu noonu sama diggante ak moom peut nit yi dañuy gis nii nii ñuy dem mais waroon na romb sax foofu noonu barke El Hadj Malick yàlla dogal na loolu noonu moom xam na man xam naa peut être ñi xam ne ñoo ngi koy gis xam nañ du dëgg te da mu bëgg a takk nee na moom xaw a jaaxal ok wax naa ko de. waaw ah, day am. waaw. ah, ah foog naa boobu day neex nag mi nga xam ne. doo fekkee jaam ak salaam naa ma comme da lay waaj takk ñaareel demal rek. Ah, mais ji jee as gis nañ appel vidéo muy dugg si te jee as ku ne xam na ni mooy sa jee as yow. waaw waaw waaw asu jee asu jee ak su la jee sama jee asu la moom xam na ni sax peut-être Euh, waroon na fi bu fi nekkoon lay gën a neex sax xam naa ne voilà donc moom ñu ngi koy ñaanal moom bu baax a baax jaay suna moom tamit kuy def lu baax rek la voilà. ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf maa a ba tey du ma jug ci ki la ñu taxaw muy euh, tonto Tafa tey bi li muy yaatu yaatu li muy rëy rëy ah, tey li ngeen di gis ci ambiance bi li ngeen di gis ci ay bernde moom jëmm ji taxaw tey moo ko waral muy tonto Tafa ñun nag man comme li may wax rek man asta doomi parcelle la comme li Pendo wax léegi ñun a nañu yëg ci camion jimbo méngoo yi mm. di yóbbul suñu yaay ay siwo di leen yóbbul ay paan grâce à moom la ndax moo jël oto bi indi ko bi inta set di def concours ci biir xale yi man yàgg naa gañe ci li nga xam ne rek moom lay def waaye tamit ku ci xewle dara ay siège am nga ñëw jël si mu abal la ko ci gratuitement ah tonton Tafa foog naa ni tey bu ma ñëwee ci bésam dafa fee war a ñëw tonton dafa ñu ngi lay nuyu ah da ah, da ah, baa ngi ni coow li li kii la tonton nañ ñu ngi lay bàyyi internet waaw mbokk internet yi maa leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal yàlla tawfeex ak tayseer di leen maa ngi nuyu ñëpp daal maa ngi nuyu ñëpp di kontaan koy waxee léegi bés bi li muy rey rëy benn yi li muy bari bari invité yi muy bari bari yow mi yaa ko waral tey mu nekk 21 mars 2021 su la neexoon tey sa bés bii nga woote ko fu ne ci àdduna def ko ay paas nit ñi dañ lay wuy si ndax lebal nga ko doomu aadama yi du dëgg mais nga préféré tant sa koñ jël sa waa koñ def leen ay hôtesse jël sa waa jël li nga xam mooy bés bi teg ko seen loxo pour organiser ko jël ay benn yóbbu ci daara yi te ku ne xam na ne almuudo yi jamono ji soxla nañ li nga def not dafa initiative bi nu mu ñëwee ci yow waaye initiative bi moom <clears throat> mbiru yàlla rek gis taalibe bu sunu émission yi commencé ñuy daw pour di ñu seetaan nga war a xam ne am na bis boo xam ne war nañ leen mën a delloo njukkal mais bis moom du bis booy créé da ngay seet bis boo xam ne bis bu symbolique la ci yow nga daal di koy def nga xam ne doo ko mos a fàtte donc ñu sunu jour anniversaire mu bëri na dañu dox ay grand théâtre ak yooyu mais man li may def nii mooy sama grand théâtre mooy sam Sorano fi mu toll maa ngi biir Grand Théâtre rek Sorano parce que xale yi suñ bëggee koñ bi nga dëkk bëgg rek defe naa deseetuloo àdduna bi dara buñ nekkoon tamit liñ ciy def tamit ñu ñu am fuñ ko def mais liñ ciy def yàlla moo dogal ñun ñoo ñaanoon yàlla buñ ñëpp xamee lu ñu am nañ ko bokk ak jaam yàlla yi donc ci loolu la mu bëgg nekk bis bi nag dafa yàgg parce que bi ñuy commencé ñaari ginaar lañ commencé tey bu ñu demee bay rey nag xam ni ñaan yi nga xam moom la nit ñi duñ ñaanal mi ngi nangu te loolu rek lañ ci jublu mooy lu ma wax sànq rek nee naa pour bernde taalibe yi pour bernde daara yi sama bët ci Cheikh Béthio Thioune laa ko teg ni muy jiitale ay nag di def màggal loolu laay ñaan yàlla man ma koy def ci daara yi di jiital ay nag pour daara parce que bis bi yemul fii kese quoi suñu paree fii dañuy dem Kaarang suñ jógee Kaarang le 20 avril incha allah ñu ngi dem Ndar def li nga xam mooy ndogu taalibe incha allah bu soobee yàlla waa BG TV du la seetaan benn yoon dinañ ànd yow ci bépp activité bu ngay def jëm ci daara yi ndax foog naa ne lii nit ku siw def na ci koñam ay 150 ans ay 30 ans te deful li nga xam ne moom ngay def tey ah def ay bernde ah di jàppale ñi nga xam ni mooy taalibe yi arrêté woo ko benn yoon di la wax ni nit dëkk na ci koñ tamit siw bu génnee taal otom dem yoonam mais tey bés bi li muy réy réy sa waa koñ ñoo ñoo la appuyé sa relation ak dëkkandoo yi waaw merci daf ma doon wax ni boo amee succès nanga nga fexe succès bi yenu la mais bul yenu succès bi ñun nag succès bi dañ ko bàyyi mu yenuñu rek yenu wuñ ko looloo waral nit bu baaxee nit lu mu war a def da ko war a njëkk fi mu ko waral fi mu dëkk doo ko def feneen mais ñun nag li def yemale ko fi ñu ko que fi ñu dëkk moom ñu ngi fi def li nga xam ñu ngi fi ñu ko fi war a def mais dañu bëgg mu saawaan baawante incha allah ci loolu lañu bëgg a dox waaw waaw ñu sa mbokk ak comédien ñëpp ñëpp ñëpp fi comédien kase la mhm. tey loolu lu ñoom dama seq ñoom jàmm rek yëgaluma ko ci kenn nag statut lan gis ñoom ñëpp ñëw képp koo gis ci bis bi fii statut laa def mu ñëw yëgaluma kenn ni ko damay def nangam donc loolu sama relation ak artiste la ñi may jàppale ci bis bi vidéo anniversaire moom moo ñu boole xaw ma ci ñu bëree bëri mosuma leen a gis vidéo anniversaire moo moo waral ku nekk di yónnee sa participant te ñi ko ci def yëpp maa ngi di ñaanal yàlla yàlla mi nga xamante ni moom mooy maye moom mooy sàmm yàlla na sàmm ñëpp ci barke yonent yàlla Muhammad di kontaan daal kii nag moom sama nit la koo xamante ni xaw ma sax nu ma koy def waaw maa ngi moom depuis quatre vingt bis bi daanaka lépp man du def dara damay toog rek mu ni booy dañu war a def ma ne ko naa mu ni def nañ ko ba pare donc kon ñi ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk Europe di jàppale ñi xamante ñoo nekk Sénégal ban ñu lim parce que dafa gudd kon képp ci def dërëmam rek yàlla yàlla na la ko yàlla sàmmal te jour bi ma njëkkee def statut xale ba am 5 ans moo ma njëkk a yónnee 150 ci bis bii nii. ndeysaan billaay walaay. xale ba am 5 ans moo ma yónnee ma woo ko mu ne waaw man maa la ko yónnee sama participation ma koy woowaat nanguwul jël pour xam fan la dëkk. donc kon bis la boo xamante ni bisu ñëpp la. kon ñu ngi ñaanal yàlla ñi nga xam mën nañ ko ñu jéem ñu góorgóor nit lépp la nga man da ngay góorgóor rek yàlla jàppale la donc tey bis bi fooguñu woon sax bis bi dina dañ doon jéem rek far yàlla def ko ni mu ko def nii kon sant yàlla baax a baax. yàlla ñu ngi lay jaajëfal baax mais sa doomu nday tey looy sant ci bés waaw euh, gërëm la rek ay gërëm la di leen yéen ñuy njëkk a gërëm dañ leen di remercier di leen ñaanal seen taxawaay yàlla na yàgg parce que xanaa xamoo am na loo xam ne lii tey jii xew-xew bi ñu ko defee fii la yem mais grâce à yéen moo tax dem fépp parce que keroog dañuy jógee Gambie maa ngi moom keroog la mu teral ci ay taalibe rek jour boobu doyoon na ci anniversaire kon nag dañ koy ñaanal yàlla ñu koy def ay at yu bëri ñëpp teewe ko mu fekk ngeen seen site bi nekk ay télé yoo xam ne car macha allah te yàlla mën na ko xol la yàlla di fay te defe naa ku gis kanamu waa ji di caméra rek gis sa kanam xam ne xol bu rafet lañ yor yàlla leen yàlla defal jàmm bésu yàlla la nag duñ ci gërëm kenn ñëpp ci bokk kon yàlla na leen yàlla defal jàmm. merci beaucoup ok merci beaucoup. tey ah tey nee naa la anniversaire u tonton Tafa la anniversaire u la te ku ne xam ne ni tubaarkàlla social moo ko tax a jóg gaa yaa ngi paqueté li nga xam ne mooy añi ah di defar ay barket di ko fas yéene séddale soxna si ñu bëgg xam yéen lan moo nekk seen rôle nii ci wàññi. waaw gis nga de jàppale woon tonton Tafa mu def euh, seddale bi muy suñu nijaay di suñu xarit bu xewle dañuy ñëw taxaw ko donc euh, mu nekk nit koo xam ne si social lay dox. donc tey jii nii bu bu ñu demandé pour que ñu ñëw jàppale ko si lii dañ ciy sawar moo taxoon daal ñu nekk fi. ba tey comme li ma la ko waxee rek waa Gane Dip xale yaa ngi ci liggéey bi xale yaa ngi def li nga xam ne rek mooy barket yi parce que. sama naar bi ah lu yàgg la dëgg la si loo ne. nii. yaay baax. maa baax. jëlekat la nag xàmmee leen ko mais jëlee ba tey ah ñu ñëw seen koñ ak ah, ñëw fi nga xam ne rek mooy déggoo kàcce déggoo fekkee si li nga xam ne mooy anniversaire tonton Tafa. tonton Tafa bu riiru tribunal tonton Tafa bu Pod et Marichou tonton Tafa bu àddina ah, ñun xoog naa ne ñu ndaw yëpp ci podium mu jimboo yi lañ lañ ko paasee. muy def li nga xam mooy ay podium ci koñ yi ñu ciy gagné ay paan ay siwo ay lépp te bu dee ba màgg muy def li nga xam ne mooy social dañu ñu fekkee ko fas yéene koo jàppale yow loo ci ah tonton Tafa moom nit ku baax la ñun ba ñu dëkkee moom ba léegi mosuñu gis changement ci moom mu bëgg ñëpp nag ñëpp bëgg ko macha allah mu am respect ci ñëpp këram boo fa duggee da ngay mel ni fa nga dëkk te ñu ña fa dëkk sax bariwuñ barki Seydina Mouhamed ñu koy yàlla ñu koy ñaanal nag lii nii mu commencé yàlla na ko terminer si jàmm ak salaam ñëpp jàppale ko si ñun ñun ay waa koñam ñam daf ñu defaree ay t te mënoon na ko cee bañ a fekk seetul ndax ay xale lañ seetul ndax ay mag lañ ci ci kër ci néegam kaw lalam fa la ñuy toog di waxtaan di def lu ñu saf te duñu wax dara mais mais lan la def tey parce que ku ne gis na at bu na dëkk na ci koñ mais anniversaire am mu ñëwee ñi ñu ngi woote Grand Théâtre ñi ñu ngi woote Sorano moom mu woote buntu këram jël ay waa koñom daf leen ay hôtesse jël ay waa koñom jox leen li nga xam ne mooy bés bi ba pare lépp lu mu togg mu yóbbu ko ci daara yi tey lool lan la def en tant jeune dëkk ak moom. kontaan xanaa ndax mënoon na woote Grand Théâtre wala mu wala mu defee ko neneen mais dafa jàppale taalibe yi jàppale xale yi. tonton Tafa xale yi ñooy xaritam amul sax xarit bu mag xale yi ñoom ñooy xaritam maa ngi koy ñaanal nag gudd fan wér gi yaram lépp lu mu bëgg yàlla defal ko ko ci barke Seydina Muhammad mënu maa wax nag damaa kontaan. nee na mënu wax dégg nga naara dégg nga naara daa yàqu waaye bu melee nii kenn du ne gulee ndax ndax kër ma kër maabooy la nekk kër gisee maabooy tubaarkàlla pendoo gisee jibi gisee ah dema gisee kajaa ngi noonu taxaw kajaa mu ndaw tubaarkàlla bu melee nii rek maabooy ko yàq de naara dégg nga moom naara <laughs> waaye ba tey ñu doxal li nga xam mooy programme bi rek xale jigéen yaa ngi fi ah sàjji def leen sax jàppale ko Tata Faty ci bés bi xale yi daw ñu dara ak ah, tubaarkaar ma jàkkaarloo benn jongomaay mineur tubaar nii naa la. fay naa la. damay tiit nii. loolu ah, lox yow. non loxuma la. nii naa la. fay naa la fay naa la. ah ñu bëgg nga wax ñu dara ci bés bi. Ah, bis Tafa bi de moom wax dëgg fa yàlla Tafa moom suñu dëkkandoo la suñu séeri la. baax na wax dëgg fa yàlla foo ko gisee rek ay ree ngay gis ci moom Tafa day kaf day ree te ci affaire sociale lay dox anniversaire am bi daal ñu koy ñaanal yàlla yàlla bu mu ko nekk mujjantalu anniversaire yàlla na ko yàgg a ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi yàlla bàyyi ko fi parce que Tafa moom borom baax la wax dëgg yàlla ñëpp la bëgg billaay wallaay nitu Fass la ñu koy ñaanal daal moo xam ni mu bëgg ci aar bi yàlla na ko yàlla may merci beaucoup jërëjëf. waaw ba tey ñu la lay jaajëfal léegi nag waagaan xale dañuy jël li nga xam ne rek mooy euh, barket yi génne ko ci mbedd bi ñu topp séddale bi xool ñoom nan la ñu organiser tey bés bi xool ñoom nan lañ nar a joxee li nga xam mooy lekk bi léegi nii rek am na benn group bu dem yóbbu li nga xam mooy bernde ci daara bi waaye ñun nag groupe bi lañ nar a àndal xool nan la doxalee ci mbedd bi ci kanam ñoom ci ñun lan bokk moo tax ñuy def li ñuy def nii waaw ñu leen di fàttaliku di leen boole ci li ñuy def waaw waaw mais est-ce du sarax bu ñuy def daal du sarax. waaw waaw merci pour ñu sentir que ni ñun. ak ñoom benn lañu est-ce que monsieur le président on peut avoir quelques ci euh, le jour de Dieu. wala di le jour de Dieu. fii la waaw je suis très content de de de fêter mon anniversaire aujourd'hui de partager avec les personnes. yi mhm. xamante ne ñoom la yàlla boole ci olof. <laughs> waaw moo tax Tapha euh, choisirul comme dem ci gars yi dem dem ay grand théâtre wala. lii mooy sama Sorano lii mooy sama grand théâtre bi moo lay mooy sama Sorano mooy sama grand théâtre waaw. Ah. aywa ça comme gars yi yéen a ngi koy gis Tapha mu ngi noonu di dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa koñam daal di leen di choisir te ci lii nga xam ne moom moo nekk anniversaire am di def ay don di leen jox. comme que nee na ñëpp am nañ ñu ñu lekk waaye ñëpp am na lu ñu naan waaye day wone ne affinité bi mu am rek ak ñi nga xam ne ñoom ñooy population waaw mu ngi noonu dafa ngi noonu ànd ak ñu ngi kontaan ci li ngeen def nii waaw di wax ne bis bi daal bis la boo xamante ni nag dañuy bañ nit ñi yaakaar dañuy saraxe saraxe wu ñu def